salaamaaleykum euh, téléspectateurs yu euh, réew mi TV la télé euh, du peuple ñuy wax ak yéen ci li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu dëkk bi ginnaaw bi nga xamante ni ay fan ngi ñu waxoon ne dañuy def li nga xamante ni mooy cinq jours manifestation démb nag ci altine gi ki nga xamante ni moom mooy le président Macky Sall daal dinay génn wax ginnaaw ba Ousmane Sonko ko defee aussi discours bañ koo bàyyee fa nga xamante ni euh, moom la nekkoon muy section de recherche di ko toppee léegi euh, nekk sous euh, contrôle judiciaire askan wi nag ku nekk wax nga ci li nga xamante ni moom mooy ñeel wàllu discours yooyu ak levée bi nga xamante ni levée nañ ko heure couvre yóbbu ko ba zéro heure jusqu'à cinq heures matin génn nag xool askan wi seen jàngat ci ñaari discours yooyu ak couvre-feu nga xamante ni yóbbu nañ ko ba minuit ku ci nekk yëkkati xool li nga xamante ni moom nga ci am ak li nga xamante ni moom mooy tolluwaayu réew mi ci fi nga xamante ni moom mooy Rewmi TV la télé du peuple askan wi wax seen jàngat ci li nga xamante ni moo am ci réew mi jafe-jafe yi ak li nga xamante ni la ñuy kon ñu dem waxtaan ak ñoom laaj leen seen xalaat ci li nga xamante ni mooy ñeen wàllu réew mi wàllu discours yi am démb ci diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko ak li nga xamante ni mooy kuufa bi ngeen topp ñu. waaw jàngat bi ma ci am balaa may wax ci ñaari discours yi damay wax ci peuple sénégalais ci peuple sénégalais laa njëkkee ñoom laay remercier ñoom laay delloo njukkal ndax lépp biir Sénégal la xewee ñu lijjantee ko biir Sénégal ba lépp yàlla def ci ndox mu sedd discours bu président def loolu la war a def kilifa bu dëkk bi amee fu mu toll yow da ngaa war a génn wax ñu déglu la nga wax lu am njariñ tam bien vrai que wax na waxu fi tam nit lu bees wax dëgg fa yàlla couvre-feu bi yàgg na fi xëy na Dakar reculé xëy na tension bi la xëy na avis médical la xaw ma ndax bu dee médecin ñoo wax ne nañ ko couvre-feu bi eh, garaaw nañ ko def ba minuit mais minuit ak fajar ñi ciy dox tam bareetuñu te yàqal nañu ñi war a liggéey wi ak fajar ñu liggéey kon kay li ma jàpp mooy ku fa buñ koy lever wax dafa yàlla nañu dimbale ngir yàlla mu dindi ko teg ko fële. Macky Sall man moom laay wax du ma wax Sonko parce que Sonko opposant la joxuñu ko réew mi moom day réew mi Macky moom moo yor réew mi moom moo war a dimbali askan wi lii nii démb dèjà bi mu waxee rek jàmm am na ba pare Macky Sall dafa daf ñoo sonal ci euh, Covid bi mooy ñoom. ñu ngeeg seen i milliards denc ko seen banques yi nu mu leen neex la ñuy daagoo guddi heure bu leen neexee ñu génn ñun baadoole yi ñu bañu ñuy sonn xam nga jéemuñu jéemuñu ñoo dimbali ci dara yow maire bi nga xam ne guddi da doon jaay fondé cere yaakaar ci nga tëj ko vingt et fu mu jëm koo xam ni moom guddi gi li muy li muy ñafe moom lay xëy suba defalee ci ay doomam lu ñu jariñoo li gën a yokk nit ñi génn Sonko ci la bokk mais couvre-feu bee ko waral man maa ngi nii kasoor laay xëy si Pikine laay ñibbi mais 5 heures bu daan jot dama daan ñibbi ah, xaw ma aw ma solution problème la ma indil ñu ngi koy sant nag donc yóbbu na affaire bi minuit mais lu ko nit wax te neewu ko mu xoolaat ñi ci ginnaawam xam nga waxuñu ko dara waxuñu ko liy dégg mu xam ne peuple bi fi mu toll nii ñoo sonn ñi génn di xeex di toj di kii du du Sonko. ëpp na Sonko Sonko amul ñii Sénégal moo am ay nit ñoo xamante ne wax dëgg fa yàlla seen ndabu muñ moo fees te ci mbedd mi lañ ko mën a wonee amuñu woon ñoom ñu may leen occasion dafa jar di moytu réew boo ko yoree da nga yemal rek ñëpp waaw mais boo jàppee ne Masamba sama langue la nekk day am jàmm ma Demba nekkul sama langue dama koy final en fin de compte jur. bon enfin euh, président Demba Euh, wax na mais dafa yéex wax parce que je pense que bu teeloon wax yu bëri nañ ko éviter mu naan maanaam bi gars yi naan président na génn wax affaire peut démb yaa ngi combien de morts mais les morts là on pouvait les éviter bu fekkoon ne président teel na wax. yaa ngi wax donc président Sonko lu mu wax njëriñu réew mi la parce que il a de MFDC yaa ngi dégg loolu yëpp wax na ko donc il a donné des conseils yoo xam ne pratique nit ñi nekk na si jàmm ñëw nañ si jàmm parce que problème bi c' est que en Sénégal affaire gars yi dañu sonn. yaa ngi dégg déjà que ñi ñuy dox benn couvre benn eh, couvre-feu boo xam ne mais amul njëriñ couvre-feu bi président bi da ko doon dindi. bu en fait bi moo gën a vingt une heure bi parce que en fait bon ñun dañuy liggéey mais dañuy jéem a def tout au moins suñuy liggéey jéem a pare ama vingt une heure pour la parce que buñ la buñ la wax il faut nga respecter ko xam nga on peut xam nga def lu xam ne jaaduwul est-ce que problème mais wax bi dëgg mooy couvre-feu bi dañ ko doon dindi nous sommes pas comme la France. la France a les moyens mais nous nous n'avons pas les moyens amuñu moyen Sénégal ñu moyen foofu la ñu ko war di tënk exactement déjà que fu mu ne affaire masque yaa ngi nii kenn takkatul masque xoolal ce qui s'est passé la fois dernière rassemblement yi yooyu donc il faut que ñu xam ne ñun ay baadoolo la ñu président bi nag xam ne Sénégal ay baadoolo lañu ni ku nekk rek da ngay jéem a fortaatu chaque jour di am loo joxe dépense wala loo am loo dundalee sa kër. ñu dindi ko moo ñu gënal am na ci ay boo yoo xam ne su ñëpp ñibbee la ñuy liggéey. su ñëpp ñibbee ci la ñuy liggéey ba bët set ñoo ñu tey liggéeyatuñu tey am na ay copains yoo xamante ni ñi ngi ñibbi ay Pikine ñii ñi ngi ñibbi ay Diamaguène ñii ñi ngi ñibbi ay Pout mais 15 heures nga ñibbi mais diggante 10 heures ak 15 heures lan nga si mën a liggéey liggéey amatul fii dañ daan am ay liggéey ngay gis oto yi fii nit ñi liggéey di va et vient mais xoolal zone baa ngi nii gisoo sax nit ñi di dem activité amatul wàññeeku na kon donc li gën mooy mu dindi ko fa mu teg ko fële te tamit fexe ba lépp lu muy waxati sénégalais yi mu doon lu mu mën ndax nit ñi sonn nañ ci liggéey li mu wax démb amul lu bees ay dinaa yokk liggéey bi chaque année loolu lay wax dinaa fexe ba ndaw ñi nangam loolu la ñuy dégg mais nañ ko gis wax dëgg fa yàlla nañ ko gis. président Macky Sall li mu li mu wax démb bon il a appris quelque chose parce que bii passe c'est le peuple ah ni ñuy ñëw gën si les jeunes c'est les jeunes ñun ñoo ne leen lii du fi am mais bu doon loolu dina demee ne voilà li ñuy ñaan daal mooy ñëpp nekk si jàmm jàmm dafa neex mais xoolal 4 jours yi nu mu mel ñun métti si ñun. yaa ngi dégg banque yi tëj ñëpp tëj kenn liggéeyul mais gaz sax amul gaz gaz da ngeen si boutique yi doo dem gaz gars yi commencé nañu perte seen lépp lépp lépp bon ce qui s'est passé à Auchan nag ñu ngi koy naqalu ñu ngi koy franchement daa ngi dégg parce que nag affaire bi dafa rax am na ñu xam ne tu vois euh, vraiment ñoom c'est des voleurs ay sàcc lañu donc il faut nga ràññi sàcc yi ak ñoo xam ne duñu sàcc yi il faut lañ wax carrément ñooñu ay sàcc lañu yaa ngi dégg ba y a des qui sont passées bon gouvernement def nañu erreur affaire nervi yi tamit bon mun na am loolu tamit ça frustre les gens xam nga am na ñoo xam vraiment jaru ko donc ñu ngi ñaan daal Sénégal nekk si jàmm ñu ñëpp nekk si jàmm lii jàmm bi mun a continuer ñu jéem a xool président président Sonko il a un opposant il faut qu'il reconnaisse qu'il a un c'est le président Ousmane Sonko